maa leen di nuyu bon man maay monsieur Thierno Aliou Sylla man maa informé chef de poste bi nekk fii Boxatul Moubarak hmm? Hmm, ci activité yi ma si ànd ak sama naataango Bas euh, Basirou Faye moo xam ne mooy ICP bu nekk Oumoul Khoura donc par rapport ak question bi nga ma posé euh, opportunité bi bon c'est-à-dire que euh, lii dafa ñëw à son temps parce que yàgg nañ ko fii di di bëgg xëy na xëy na peut-être amuñu woon opportunité kuñ ko kuñ kuñ ci mën a jàppale waaye bu ñu yàlla dimbalee ba jeunes yi ak dynamisme bu ñu am ak ànd ak Moustapha Seck ñoo proposé ma ko ah man teguma ci baat dama xam ne askan bi soxla nañ ko parce que ñun yàgg nañoo askan bi ñun ñoo fi nekk di liggéey ci wàllu wér-gu-yaram loolu daal bon te gis nañ ni tamit affaire bi réussir na parce que liñ doon xaar suñu objectif li ñu doon xaar am nañ ko ci bien vrai que jeexagul ñu ngi continuer mais suñu objectif tey ci ci ci wàllu consultation gratuite bi hmm? ñu ngi doon xaar peut-être nañ am 300 personnes mais am nañ lu ko ëpp te pareeguñu hmm? euh, ci wàllu consulta euh, kii bi don de sang bi tamit mais ñu ngi doon xaar am 100 poches mais 100 poches bon xaw na des tuuti mais comme jeexagul gars yi ñu ngi ci liggéey bi mais yaakaar nañ dañ fi am 100 poches ak lu teg parce que instant bi ni askan bi soxla nañ deret gis nañ ni deret dafa manqué ci Sénégal yëpp jeunes yi bañ xalaatee ne mënu mënuñ fi toog lu lépp lu ñu mën def pour seen askan dinañ ko def ñu xala am initiative bu rafet boobu ñëw may deret waaw moo tax tey journée bi daal loolu moo dàkkoon opportunité bi. première euh, question consultation am ngeen euh, après ay 300 patients yu ngeen kii. jël en charge. ci pathologie yi ngeen la wala am ngeen ci ci consultation yi ay spécialité yoo euh, waaw pathologie yi fii lu ci ëpp su maanaam suñ consultation yi lu ci ëpp moom mooy hypertension yi HTA yi. moom moo ci ëpp comme spécial HTA yi lañ fi am à part HTA yi dañuy am ay bon ñu si ëpp ay assaini ay assaini la ñuy am ay assaini ay assaini physique hmm, chez les enfants moom jaare ñoo ëpp te ku wax jaare wax euh, situation environnementale bi ñu nekk hmm, ci wàllu set gi ñun ñëpp xam nañ ni askan euh, fii zone yi ay zone yu défavorisées lañ si ay sancaan lañ dëkk ah wàllu moo tax wàllu cet bi day xaw a des tuuti Euh, wàllu environnement bi daal hmm, ak palu bi nag am nañ ci tuuti mais bariwul parce que instant bi dañ nekk ci phase de démarrage bi palu bi am nañ ci quelques cas rek mais taxu koo bari mais pour l'instant jaaree ñoom ñoo fi ëpp ci xale yi ci mag ñi HTA bi ñoo fi ëpp ci lu luñ jot a xool tey. léegi am pathologie yooyu. su nekkee wàllu HTA bi moom loolu suivi la rek dañuy ñëw ñu leen di xool di leen jox rendez-vous ñu jël seen traitement comme il faut après ñu leen di conseiller. li ñu war a lekk lekk yi ñu war a yemale li ñu warut a lekk hmm? na la war a mën a comporté woo ci seen wàllu alimentation hmm? ak ci seen wàllu nekkin maanaam tamit bañ a sédentaire bañ a toog rek hmm? euh, moytu lekk yu niin yu bari yi moytu ndawal yu bari ndawalu guddi yu bari si ñoom am HTA yi moytu yu niin yi moytu yenn tamit xeet xeetu ñu ko demee ni ay kimasi bu bari yooyu yëpp mooy trop salé lekk trop loolu am na âge boo boo ci tollee gënut ci yow à part nit ki à partir de 35 ans war na commencer surveiller li muy lekk hmm? ci wàllu xale yi tamit euh, wàllu jaare yi ma doon wax loolu tamit ñu xool mesure euh, d'hygiène yi ñu delluwaat ci mesure d'hygiène yi moom mooy nit ki nu mu war a def ah ci wàllu set ñu yokk cet gi parce que bu ñu yokkee cet gi xëy na yàlla mën nañu dimbali feebaru jaare yi dina wàññeeku te bu ñu nee cet gi nag nekkul cet gi ñëpp ci war a jàpp waa service d'hygiène ñu ngi ci nit ñi seen bopp foog ñu leen di ñu génn di ay causerie di waxtaan nit ñi seen wàllu Euh, euh, wér-gu-yaram ci wàllu cet ni ñu mën a comporté woo nit ki na la mën a nekk ak doomam ba mu yàlla mën na euh, bu ko defee nga xam ne comportement boo xam ne bu ko amee yàlla mën na ko dimbali ay xeet feebar du demee ay biir yu daw yàlla mun na ko ci musal ci wàllu jaare bi ak yooyu quoi ñu ngi am ay relais tamit ñu dynamique di def ak ñoom ay causeurs ñuy génn dem si askan bi di waxtaan ak ñoom ci ci wàllu boobu bon

Euh, il fallait en amont ñu ñu teel a commencé une semaine à l'avance ñu commencé génn di wax ak nit ñi parce que man je je pensais que ni loolu mu ngi woon en euh, parce que organisation bi si loxo booy la nekkoon man je pensais que ni ñoom loolu commencé woon nañ ko bu yàgg mais à ma plus grande surprise démb lañ commencé yéene du wër ci quartier bi di wax. te xam nga don de sang dafa nekk lu xaw ki kii nit ñu bëri boo leen waxee don de sang rek dañuy ragal te don de du dara dañ leen ko rek wax leen avantage yu si nekk don de sang naa ne avantage kese la. buñ leen teeloon leral avantage parce que ñun bañu gox yi war nañ fi wax wax ak ñom wax leen avantage ci nek mais tamit diggante dembo ak tey dafa xawa gàtt lool moy problème peut-être organisation peut-être côté bobu mo xawona dess touti rek mo xawona dess parce que communication bi su gënon jàll xeyna doona sa a sang bi xeyna dinañ am lu ëpp liñ am tay legui au au-delà de cette activité spécifiquement lan moy jafe-jafe fi ni bu xatul mubaarak waaw loolu moom boo ma ko laajee dinaa ci sawar spécifiquement fi Euh, ñun ñu ngi bëgg a yàgg ci askan bi fii jafe-jafe yi dafa na dafa jafe-jafe bu njëkk moom mooy euh, jafe-jafe yoon xam naa ne yoon moom luñ ci waaye mën a dimbali ba defal ñu ko dinañ la ko sante parce que bu yoon amee dina mën a yombal yëpp lépp lu ñu bëgg fii dina mën a ñëw jafe-jafe bu njëkk bi daal yoon moom bu ñu si mënee dimbali ñu am ko dina baax lool lool lool bu si bu si topp moom mooy ñu mën a am ambulance ba pare bon ambulance ak ambulance dafa am parce que am na euh, benn zone umul xuraa indil nañ leen ambulance dañ koy saluer mu nekk lu rafet dañ leen ko dañ koy saluer mais bu ñu sañoon ñu am ambulance ñoo xamante ni ñoom ñooy adopté ak zone bi parce que zone bi dafa am mel. adopté zone bi mooy mooy maanaam ambulance boo xamante ni day nekk Land mooy 4 x yi parce que yoon bi dañoo am jafe yoon. ambulance yu yu nga xam dañoo dañoo dañoo xaw a gàtt suufee boo ko fi indee da ñuy gën a sonal rek ndax basa ngi ni ambulance am bi su gé saa bu génnee problème lay am. du mën a sori du mën a dem fenn waaye nag yëpp maraan nag dem paan ci yoon bi kooku tamit gën a buñ sañoon land cruiser yi taxaw ministère land cruiser yi ñu téye ñu euh, mu tuddati wakaam am na ñu fa gaare buñ sañoon ñu jox ñu si ñaari poste de santé yi land cruiser foofu ñun xam nañ ko land cruiser yooyu lañ bëgg ministre bu nekkee bu may dégg ak ku mënti dégg ñu ngi koy ñaan mu dimbali ñu mu indi ñu si ambulance yooyu yooyu lañ bëgg ñun ñaanuñu ambulance pour ñaan ambulance askan bi ñoo ko soxla moo tax ñu koy ñaan fii toog nañ fi ñu war a ñu woote euh, jéemul ambulance bi mënul ñëw ndax taw bi ambulance bi te laan ko 10 la de balaa muy ñëw fi fekk na femme bi daanaka balaa fa ba mu ñëwee jël fa femme bi balaa ba mu yeggee janatu balaa muy wàcc la décédé parce que coagulopathie la doon def di saigné kenn mënu ko téye mënuñu dara dañ a jël en charge fii plateau technique bi matewu ko dafa am suñu suñu suñu rôle fu mu yem ci wàllu wér-gu-yaram amee fu mu toll dañ ko war a jàllale ñun loolu mooy suñu yoon mais boo amee loo ko jàllale nawet bi ñëw na yoon bi kenn mënu c'est impraticable nu ñuy def moom mooy woo ambulance bi jéemul diggante jéemul presque 7 kilomètres balaa moo ñëw lu nekk xaj na ci léegi bu ñu mënoon am ambulance yooyu ma wax ñun dinañu arrangé wax dëgg yàlla jo wax naa ko ñun lu ñu mën a lu ñu mën mooy ñaan ñun mënaluñ suñu bopp ambulance mënuñu ko indi suñu bopp wax nañ ko homme politique yi liñ ci mën wax nañ ko chef religieux yi ñoom ñëpp ñu ngi wax nañ négandiku loolu moom ñu ngi koy ñaan beneen bi moom mooy yoon dama koy waxaat hmm? ah waaw yoon bi wax naa ko waa bu ci bu ci topp bi ak sécurité bi fan nii tamit am na ay ay ay événement yu bees surtout côté mbaar yee jëm kaw fo sécurité bi police war nañ jaar fii di def ay ronde parce que sonal nañ askan bi man mii di wax ak yéen samay xar sàcc nañ ko man mii di wax ak yéen samay xar sàcc nañ ko fi donc ba pare agression yi dafa bëri xam nga fii am nañ ay cas d' yu bëri ñu recensé fii agresseurs yi ñu ngi fi ñuy ciné euh, bar bi mu ngi fi jeunes yi ñi adonné wu a di tux ay yooyu naka si du noonu mooy seen yàmbaay ak yooyu léegi bari na fi ci dëkk bi te daaw fi am loolu tamit police daf ñoo war a dimbali ñu yokk sécurité bi buñ munul di ñëw sax di def ay patrouille ñu tiital nit ñi loolu dinañu arranger def de temps en temps ñu wàcc fi xam nga pour xaw a euh, décourager ñi def yu bon yooyu agression yi am na fi sàcc gi am na fi dëgg yàlla sécurité tamit ñu yoon naan lu ñu si mun a dimbalee ñu dimbale ñu ko